lazinul sallati waliya iza ma sunniya la tusbiti bal ma talihi aw lihin alama wannunu in tusdaq fala malam wala in tafdi wannunu min zayni wa tayrin suddida aydan wa taawidun bi zaka qusida jamu alladi fula alladina mutlaqa wa baaduhum fil wawira man nataqa kon ñu jàng loolu al mawsul wa huwa mawsul darbaani ñaari xeet la mu ne mawsul ñaari xeet la ismiyun ko jug lisim danay du lisim moom almaskuru mooy bi ñu tudd fi nag mi ci wéy mooy bi ngay jàng ci wéy harfiyun ak ko jug haraf mawsul danay doon haraf woom kullu harfin mooy bépp haraf ku wila wu tawileef na ko maa si la tii ànd ak si laam bi ma tërin ci masa la bin ma tërin bépp haraf buy ko boole sillaam de ko delloo ci masdar ndax nga mën a am lisim boo xam ne yaa ngi ko soxla woon ci sa jumla haraf booba dañ naan harfi la woo mu haraf yooyu nag sittatun juróom benn la loolu nag juróom benn la na an mooy ba mooy ba ca wa an ak an wa maa ak maa wa kay ak kay wala ak law wala bi ak allafi am na mooy bi njëkk ni ngi awalam yekk fihim fenel la bu war a xam fenel ñu ngi déglu lisim an na ñëw di haraf ànd ak asal naa ñoom ñaar ngay boole boo tawilee masal nga mën a am fayel muy awalam yekk fi im insaaluna kon an na bi mawsulaa fii la ak ba tey wa an tasuumoo xayrun lakum xayrun mubtada la xabar war naa ànd ak mubtada muy tax jumla sotti léegi nag an mooy xaraf nga war ko boole te soo moom mii si lam so tawile mën a am looy tuddee mubtada nga la dégg ak ba tey li ñuy jàng ci alquran mu ne bi ma nasu mm. yowmal xisaab mm. baa xarafu jar la mm. soxla na lisim bum jar ma nekk xaraf warham silla warham def na suuf kii sillam soo leen boole tawil masdar mën a am luy tuddee ma juróom baax mooy bini seenim yowmal xisaab kon maa ngi dañ naan mawsul xaraf yi ak ba tey li ñuy jàng ci alquran mooy li kay la yekoona alal muminina xarajun laam xarafu jar la kay di xaraf topp ji nga war a boole kay ak layi koonu boo tawilee masdar mën mm. li sim boy tuddee mu laam mm. kon kay bi mawsul xar mm. li adam kaw min xaraji alal muminin ak ba tey li ñuy jàng ci alquran mu ne yawaddu ahaduhum law yuammaru alfa sanatin law pour muy mawsul xar dafay topp lu ñoo dégg maanaam taman bi ni ki yow ak luñ teggalee taman bi dana ngéeju li moo ngéeju xamuñu ko law mooy xaraf topp ji nga war ko boole yu amaru mi si lam ba tawelee masal nga mën a am koy tuddee maxoon mu yowdu ahaduhum taamiran la kon waale am ay law mosul xarfi la ak waxutun kalladi xaadu kaaf eh. gi xarafu jar la eh. alladi di xaraf topp ci xaadu di filam eh. nga war a boole alladi ak xaadu tawil masdar mana majruru kaaf muy waxutun ka xawdihim kon ba tey alladi bi mawsul an fii la wa qila inna alladi min asmail mawsul mu ne mawsuulu lasmaa yi mawsuulam ay lisim hmm. ismul mawsuul hmm. darbaani ñaari xeet la hmm. nafsun aji sellal wa mustarakun ak mustarak da ngay gis baat boo xam ne nafsu mawsuul rek la duudu lu ko mooy mooy nafsu nga da gis baat boo xam ne danay da mawsuul danay duudu mooy mawsuul moo ne fan nafsu nafsu mooy maa mooy loo xam ne laa yaati du mu dikk illa mawsul boo xam ne si mawsul lay wa minhu bokk na ja alladi bokk na ci ne ladi ismul mawsul la te nag laa yaati illa mawsul bil mudakkari ñaar lu ñu góor yaa ngi koy jëfandikoo ci góor alxaqili gudaa ja xelu ni alladi jaa bi sidqi aw xëyri wala bu amul xel ni hada yamukum alladi kuntum alunsa jigéenam allati lati la so ja bëggee jigéen lati lay do moo xam bu jigéen ju am xel la ni nga xat sami allahu qawla allati wala jigéen ju amul xel ni nga hadihi naaru lati li mooy ismul mawsul buy jann moo xam ku góor la wala ku su fekkee da ngaa bëgg mu tegtale ñaar il faut mu am alamatu tasniyati waaye suun ne nag fee bàyyi yaay ci si nga naan allati si yaani wala si yey ni loolu doo ko yaa si da nga si da nga koy ibnu malik ne wala tusbin ngeen labal saxal al yaaya mm. isaama sunni yaa ndigam tasniya la na ñoom ñaar lati wala lati soo ko bëgg a tasniya yaa boobu ci cat ba ko ci bàyyi yaani waa lati yaani ba ko ci bal li fi nekk maa na nga méngale li nga xam ne te lii yaa gi dana ko méngel ndax aw lii nan ko méngel foo watam adaalu mooy daal min alladi wa taaw min alladi min allati ndax aw lii nan ko méngale al alaamata mandarga adallata muraadi tegtana tasniya buy ci ladi da ngay dindi yaa gi daal bi ci ngay teg alaamatu tasniya ti bi gannaaw boo ko fataaye muy alladaani way rafa wala alladayni boy na tam wala nga rejaab buy si la téye da ngay dindi yaa ci ngay teg alaama tasniyati bi gannaaw boo ko fataayee muy alif ak nga ne allah taani ci booy rafa wala yaa nga ne allah tayni ci booy rafa xam ne boobu daal waaw taani wala tayni wala balli fi nekk maa na nga méngale li nga xam ne te dana ko ménga te mooy daal gi ci àll bi wala taagi ci allati ndax eh. awlihi nañ ko méngale al alamata mandarga tasniya eh. wa nuunu nuun gi nag nuun gi ci lataani lataani eh. wala sayni la sayni in tusdat bu sadda bu ko su fekkee dañ ko binaa ci wala in tasdik boo ko sadda su dee dañ ko binaa ci faayil wala bil binaa lil faayil al mafool wane allataan ni allataan ni nga sàdd nun gi kon it falaa malaamata déedéet ya del de am ci loolu kon it loolu dul lu xaay seeta ni ni nga bokkal ma xam mi ñoo ko jàngu nante ñu jàngu ma xam ñu jëkk ñu jàngu ngeen jàngoon démb ci saani taani mm. wa tayni ak tayni mm. suddida saddaxeef na ko ayatan ba tey mm. boo ne saani wala nga ne taani nun bi dañ koy sadda nga ne saanni taanni watan wi doon wat xosida jublof na ko bisaaka ci sadda googu te ka nun gi pour sadda gi watt lañ bi asakaya la wane allataanni allataanni yaa gis nga safee ba daan wax alladi wala allati moom la sàdd gi wuutu bi ne saanni alif bi nga safee ca ba nga daan wax saa moom la sàdd gi wuutu bi nga ne yaa bi nga a wax tii wala alif ca mën wax saa wala yaxtasu dalika bi xaalati rafin sadda googu nag du jamonoy rafaarik ci lay xam mm. jamonoy nasab jamonoy jar affaire bi ànd ak mm. du tee mën nga boole sadda gi ak yawul musanna mm. faqat koy jàngees na ci alquran rabbana arina latayni day ko de jàngee sadda nuun gi te foofu dañuy nasab yàlla gindi ak ixdam na tayyahatayni dañ ko jàngee sadda nuun gi te foofu dañuy jàng dinañ ko baax yàlla gindi wa nuunu nuun min dayni mbira moo tukkee ci zayni wa tayni suddida sadda xeeb nañ ko ay dan ba tey wa tanwidun watta xusira jibloof na ko bi saaka ci sadda googu lii mooy ismul mawsul ci jàng góor genn jigéen ñaari góor ñaari jigéen kon ñu dem ci mbooloo mbooloom góor la ñuy nekkee mu ne jamho ladi jamhoy ladi ladi jamho al ula ula la bi xayri waaw du am waaw nag mm. ula ña nga xam ne ngay ula mm. alladina ak alladina dañ koy jamoole lazina ne humul lazina mm. mun la xande lu ñu waaye lazina boobu ne dafay taqu yaa ak nuun ko binaa ci fata waaye nekkul ne dafa léegi jom rek kari saalim waaye rafaanaan la soona jar nga ne la am booy rafa booy na sa booy jarib la siina ngay wax sir nga lam yëkku nit la siina mooy polisi mi yëkkul waaye la siina lay wax noonu rek wala siina amulu ñoom tala la siina lay wax mun la xanaa rafa wa xayroo mm. wa baaduhum lenn ci arab yi nataxa tudd namu bil waawi jawra man ci rafa gis nañ ci waxi arab la siina xamee atte joxoon muzakkari saalim ñuy rafa andi waaw naan la soola mm. loolu gis nañ ko mm. waaye li gën saaroo daal mm. mooy la seen rek la ñuy wax léegi naxnu la duuna tabaxu sabaha yow ma nu xëy li xaaratam milxaaha naxnu ñun doona ñooy ñi nga xam ne sabahoo ndekke nañu asabaha akam ndekki yow ma nu xëylu keroog bisu nu xëylu غارة لكن ملحاحا مرمي سهل أني أني مقدم نحن الذين بالواو تلولا يوم سهلا نحن الذين بالواو تلولا يوم سهلا من قبر نحن kon ni jàng loolu jamu lati jamu lati alfula fulana alladina ak alladina la xam ne lañu boyal ci boy rafa ak boy lu may rafa wa baaduhum lenn ci waxkati arab yi nasaxa tudd